réunion bu ñu oote tey ñun waa Ligue démocratique dafa concerner secrétariat permanent bu parti bi ak secrétaire généraux 46 départements yépp parce que ñun waa Ligue démocratique dañu am ay kuréel ci 46 départements Sénégal moo tax de temps en temps bu ñu deful bureau politique ñu oosul secrétaire généraux ñu ñëw dakaar daje ak waa secrétariat permanent discuter échanger del jël ay décision réunion bu mel noonu moom lay convoqué tey secrétariat permanent élargi aux secrétaires généraux départementaux bu ñu commencé waxtaan bi tey def nañ ay ñaan jagle ko ay camarades yoo xam ne dañu àndoon ak ñun te faatu jagle ko également Serigne Saliou Touré bi nekkoon représentant xalif général des Mourides à Thiès jagle ko également ñaari jeunes yoo xam ne ci manifestation yi amoon Xosanto le 11 septembre dañu ñàkk seen bakkan ak ñu ñàkk seen bakkan Maroc ci tremblement de terre ak inondation yi am Libye bu ñu paree ci loolu secrétariat permanent élargi déglu na communication bu am solo bi camarade Nicolas Ndiaye secrétaire général du parti jagle réunion bi ñu rafetlu communication boobu parce que communication bu am solo la boo xam ne ci wàllu candidature ak wàllu Benno Bokk Yaakaar bàyyu ci dara bu ñu paree ci loolu secrétariat permanent élargi rafetlu na ni président Macky Sall defee ay waxtaan depuis le 10 juillet pour Benno Bokk Yaakaar am candidat parce que maa ngi rappelé ne le 3 juillet 2023 la Macky Sall jëloon décision ne moom du bokk ci élection 2024. le 10 juillet ñu oote conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar depuis le 10 juillet ñu commencé dut ay candidats Benno Bokk Yaakaar amoon na 10 candidats. à la candidature am na ay candidats yu bari yu bukkoon nekk candidat Benno Bokk Yaakaar bu ñu defee conférence des leaders le au mois d'août am na ay leaders yu bari joxoon Macky Sall carte blanche ne ko yow yaay président de la République yow yaay jiite Benno Bokk Yaakaar jox nañ la autorisation nga tend candidat boo xam ne boo ko tànnee ñu ñëpp jëlee si d' ñu bari loolu moo nekkoon seen position jouer carte blanche ñun waa Ligue démocratique ànd ak waa CDS confédération pour la démocratie et le socialisme nekk ay parti de gauche ñu ne ko d' accord pour carte blanche mais lu ñu bëgg ñun yow Macky Sall nga consulté ñu waxtaan ak ñun ñu wax la suñu xalaat ci candidat bi. mu ne donc ñu joxe carte blanche nangu naa carte blanche boobu di d'accord également pour ma waxtaan ak yéen ak ñoom d'accord na loolu moo tax recevoir na coordination confédération de de la démocratie et le socialisme CDS le 9 août bu ñu demee ci moom ñu ne ko candidat Benno Bokk Yaakaar ñun ko gisee ñun waa CDS mooy war na mel nii war na mel nii war na mel nii war na am lii war na am lii ci jikko joxuñ ko tuur mais jox nañ ko profil loolu moo tax comme Macky Sall am na ñoo xam ne daf leen déglu te ci ñu mu déglu ñu mbokk nañ ci moo tax ñu rafetlu démarche bi mu utiliser parce que mënoon na jël carte blanche bi rek désigner benn candidat donc loolu moo tax secrétariat permanent élargi ne comme boole na LD ci waxtaan yooyu bu mu ut candidat loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ah, ñu ne nag candidat Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba nuñ ko nuñ ko tendee démarche inclusive boobu d' accord nañ ci mais également d' nañ ci choix bu porté ci Amadou Ba lu tax parce que ñu considère ne Amadou Ba premier ministre la mais avant mu nekk premier ministre am na fu bari fu mu jaar ci wàllu état xam na administration parce que nekkoon na directeur général des impôts et nekkoon na ministre des finances ministre des affaires étrangères nekk premier ministre 2017 moo nekkoon tête de de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Dakar aux élections législatives ñu gagné 2019 moo nekkoon le président du comité électoral de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle de 2019 et Benno gagné Dakar donc boo boolee expérience politique boobu ak fu mu jaar ci wàllu activité professionnelle ak lu ñu ko xamal ci jikko ñu ne choix bu porté ci Amadou Ba ñun waa Ligue démocratique d'accord nañ ci te dañu décider def campagne d'abord ci parrainage bi bokk ci pré-campagne ak également ci campagne électorale Ligue démocratique dafa jàpp ne Amadou Ba candidat bu jógee ci Ligue démocratique la donc Ligue démocratique dina taxaw nu mu waree taxaw pour que ñu gagner au premier tour 2024 incha allah mais ci loolu également loolu euh, ñu ngi ñaan Amadou Ba bennoo Bokk Yaakaar mu fexe ba luñ ko xamal ci ay qualité mu wone ko développer ko renforcer ko gën ko yaatal fexe sa ñi war a votel Benno dépassé Benno Bokk Yaakaar maanaam Amadou Ba warul yem rek ci Benno Bokk Yaakaar war na waxtaan ak sénégalais yépp yi nekk ci biir Sénégal ak diaspora bi ñoo xam ne gëm nañ démocratie gëm république mu yaatal géew bi ba benn Bokk Yaakaar gagné au premier tour 2025. moo tax ñu ngi ñaan tous les démocrates sincères ñoo xam ne démocratie moo leen intéressé république moo leen intéressé laïcité moo leen intéressé ni diina bi taxawee Sénégal moo leen intéressé ñu ngi ñaan ñooñu yépp nekk ci biir réew mi ak diaspora ñu ñëw ñu ñëw ànd ak ñun waa benn Bokk Yaakaar ñu taxaw campagne ba benn Bokk Yaakaar gagné en février 2024